Ngaaka Blinde daf lay rey quoi gis ngeen ko ni mu defee piano bi est-ce que ngeen ni mu defee piano bi dama koy reculer ngeen xoolaat ko dama koy reculer ngeen xoolaat ko. ki la tuddee ki yàlla teral ki la tax a bàyyi